magum jëmm sax jeeg di gis góor bu ñëw di ko nax di ko gëmloo leneen waxantuma laa xale bu am ay 17 ans nee ma tata moo tax boolew ma woon ndax dama ne ko yow lu tax boolew woo Adja boobu ba léegi yow tam Adji mu ne ma Ndeye Khady daf ma doon wax ni ma yaa ngi ni gis nga Sonko xale yépp jaar ma seen kaw ba jàll mais yow mënul toog minute te gisu la nee na ma man Ndeye Khady damay takk Adji Sarr moom laay yóbbu pale moom la Cheikh Bara wax Mm. garabu garab. waaw nee na naq yi moo fatt sonko mënu ko woon muñ. Mm. dëgg la moo tax mu kap Cheikh Baara moo ko wax. <laughs> waaw mu ne bu bu guuxee day buux. bu guuxee day buux. waaw nag la saa def. bu guuxee day buux. lii la Cheikh Baara Ndiaye wax. Cheikh Baara yaa bon. beneen cas mooy kaawu Déthié Fall mhm. ginnaaw bu mu wanee ginnaaw Pastef dem ànd sàmm sa kàddu ñoom Bougane ñoom Barthélémy Dias ñu gis jur ba ñuy jàpp Bougane moom ñu gis ko Petit Palais ñaari fan tegu ci nee na génn na ci li nga xamante ni mooy sàmm sa kàddu dem bokk ci liste bi nga xamante ni yow investir ñu la ci lan moo ko jaral ak lan lañ ko dig ba mu nekk foofu tey kuram ak ne mën na ne quatorzième position lañ ko teg mhm. mais moom turam dafa newul ci liste yi lii may wax nii hmm. jimboor yi yëg moom moo jox maire bi sama numéro man lu ma wax day leer Tange mhm. tëdd sama kër Amérique mhm. am benn maire bu ma woo mhm. ñu nuyante mu ne ma man kat Déthié <laughs> dafa ëmbal sama doom dama ni teqa dire ni ko baal ma de ah. ma ni ko réew ma la de jéggal ma du bii xanaa mi ngi maire bi xale baan kii moo jur kii awa bu Sonko. kii mi ngi nii. Ah. parce que xale bi ci ba ba ñu barricadé Sonko. Uh-huh. xale yi ay Pastef lañ uh-huh. ba mu barricadé euh, ba ñu barricadé Sonko ñoom Déthié Fall di jooy di naqarlu uh-huh. di taal dëkk bi booba ña ngay bëggee ci suuf. su guddee ñu jël xale yépp yóbbu kii yaayam indi ko vacances nekk Belgique xale yi ak seeni mag nekk Italie magu xale yi ñëwoo seen yaay ni ko kii dafa ëmb yaayam ne leen ëmb. woo ko mu ne ko Déthié Fall moo ma ëmbal yaa jee ma wax de mu ne ma ma woo Déthié mu ne ma man la ma ne ko waaw léegi bu wasinee nga def li la war comme sa doom la mu ne ko waaw nee na ma xale bi wasin gisuma Déthié dégguma Déthié maa tudd sama sët tuddee ko beneen tur boo xam ne man maa ko préféré ni ma Déthié Fall nangootuma wuyu téléphone maire bi ma ne ko porte ko plainte yóbbu ko justice yéen a bàyyi ñii ci leen nekkee yóbbu ko justice li may wax xale kooku nekk euh, Feeling Dakar xam na ko xawma jimboor yi mhm. junjur na ko ci benn émission ne am na ñii di def kandidaa ku ci ëmbal doomu jàmbur mhm. xale bii ku ko xool Déthié Fall juru ko xale bii Déthié Fall jurul yiy lex kii du dëcc mu ndaw. kii du dëcc faal mu ndaw. teg teg teg bopp kii du dëcc mu ndaw. na ko maa maamam woo xoolali xoolali. laa ah. ilaaha illallaah dëcc faal damal jël sa doom ji. demal jëlaat ko ngénte ko tuddee waat ko say mbokk dafa habitué des faits am na kenn ku nekkoon aussi Kër Massar ba mu demee ba am fukki at ak juróom-ñett bëggoon nekk candidat si la koy soog a lii la ñuy dox du moom rek de. Ah, mais Tange doo xoolee kaaw gii Marius Sagna booy dem di manifester moo booy génn leen booy dem di ah. manifester di xeex xeex bu metti hmm. ci weer boobu la ëmbal doomu jàmbur. waaw bàyyi jabaram moom tamit. waaw. waaw ah, ñoom lan mooy seen problème. kenn xamu ko. Cheikh Baara xam na problème bi. Cheikh Baara nee na. jamono yi daal kenn faat mi ngi tàkk. waaw Cheikh Baara nee na. <laughs> xale yi jigéen yi moom. Cheikh Baara nee na affaire bi ñu bëggee xale yi jigéen di filmé te xamuñu ci dara. xale yaa ngi leen di xale yi leen photo ci salle de ay ñii dinañu yuuxu ba ci Gundara Kam. seen ay secteur dina bare de. Ah, mais mais Tange Tange loolu loolu. il mais am na benn ministre bu takk ñaari jabar su takku suuf. ci digg dëkk bi. ministre bi takk na ñaari xale takku suuf te ministre bi am na ñaari jabar. non ñii. kenn ki moom si affaire mode la nekk kenn ki ci affaire aar la nekk. gosoo gosoo ñoom ñëpp takk nañ leen takku suuf kenn kaa ngi almadi kenn kaa ngi ville ñu jëlal. waaw waaw waaw ah, waaw. léegi nag jaaw nu mu benn weer. sonko bu ee. Eh. takk nañ ñaari eh, sonko bu ne sonko bu ne ak jomaay jub jubal jubbanti. Hmm. maam booy jaawo dañ ko war a woo maam booy jaawo li mu yor yëpp jox na ko fecckat yi xale yi fecckat yi sa bopp day leer. Ah, kaaw maam booy jaawo bi xanaa. dégg naa gel yu bëri di ko miim. gel yu bëri di si wax. ñii mu leen di ubbil ay magasin. Hmm. ñii mu leen di jëndal oto. Hmm. maam booy jaawo. bu fekk see ñoom Sonko war na ah. xale yi la ñuy jàpp di nappaaje waru Akhenaton nu mu leen neexee actuellement nii. Akhenaton wax na ko de na ca. nu mu leen neexee. kon daal lii mooy fu mu ne nii campagne bi ndegam Sonko lañu jàpp dugal nee nañ ma yow Déthié Fall bu ñu musaana dem campagne yi du ubbi néegam bi. ministre bi daal takk na ñaari xale takku suuf kenn ki waykat la kenn ki mannequin la. mën na ne loolu mi fii ci Dakar. mën na ne ñoo capable nañ ko. Ah. capable nañ ko ñaari jabar kon daal tëj na bunt bi ñeent mi nga beneen doomu Déthié baa ngi nii. kii mi ko kii moo dekkoon Kër Massar mi ngi koy soog a reconnaître ay waay Déthié Fall lii lan la Déthié Fall la xubeñe hmm. ay Déthié Fall la xubeñe lii lan la régleel sa bopp. moo kaay daal ngeen boobee ñu laa ñu wutal. ngemb weñ. ay dëcc fa lu mu xewle. ñi daal tans ngemb weñ a baax si ñoom. Ah. waaw ngemb weñ da xamal. a de. kon nii la ñuy développé Sénégal. ku waxoon Ousmane jabaru Ousmane Sonko yi ne leen Ousmane Sonko dina dem ci fu mel ni Suite Beauté nday xadi ubbi këru caga. Hmm. jël doomu jàmbur yi xamul dara di leen cagatuloo. Hmm. xam nga la ma sama benn copain di wax. xam nga hmm. lii du dal bàq li mu jaar ndax booy taawon la. ñoom dañuy dabe. Ah, ñoom ñun bi ñu nekk bi di toj taawon bi. ñoom ñoo ni ñoo ni ñoom ñoo ni si leneen. d'accord léegi nak am nañu tour am nañu pouvoir. Mhm. léegi lañuy def. leen kese mo len tëwoon muy xalé yu jigéen ñi léegi xale yu mm. jigéen ñi. Mm. n'ont qu'à voir tax mais luñu dafa xalé ak xale rek dina feeñ. xalé ñi ngi filmé de. ah xale xalé kay ñoo film xalé ya ngi ah. filmé di photo. barki démb li am problème parce que lañ ma jox kenn faat. loolu ëpp na. <laughs> ma jox kenn faat. lan lay ëmbal bañ. mieux vaut nga am preuve. te 1 million la ñuy maye nee na. eh, eh waay Samba. ah 5 millions la ñuy fay ko. 4 preuves nee nañu 1 million la ñuy maye. am ay privilège am essence ak lépp. xam nga am am tamit am tamit ay prix ndax Sénégal ñu ngi dégg li.